dañuy dem fi nga xam ne mooy ca Ndey Mbuub Ngoyaan la ñuy fekki waaye yónni fa dërëm nga xam ne dafa dégg ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba fi dégg yam man naan lawal daal sama xel dafa ne ci lawal man naan lawal tey ku war ga tey ku war ga ku war ga tey naana baa ngi nii gis ngeen naana gi ay laa xëy la la lan la naana ordinaire la la ah waaw waaw na eh, nañu dem fi nga xam ne mooy ca Ravin ca Ndey Mbuub euh, Ngoyaan eh, yónni woon nañ fa dërëm nga ñu dem xool ko dañu wax dërëm noo def. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Aba di la nuyu sama rakk ji tubaarkàlla nag da nga xew loo neex defal ci chaîne bi ah ñuy wax ni Dakar ne dort plus fi mu ko teg foofu la Aba sama rakk ji sañseeti nga hmm. waaye nag tey dama la ñëwal fi nga xamante ni mooy euh, Ravin. ànd ko kan nday muy xale bu xew xale boo xamante ni tubarkalla macha allah dafa nekk ci musique sénégalais di bay waaram nekk xale bu mën a woy te loo xam-xam ma demba ma demba gën laa xam booba tey nag ma ànd ak Yaya Camara yille fii ci Pikine ah fi nga xamante ni mooy sant centre commercial Malick mu defal la di ma ah, ensemble bu toog di ma demal bégal Sénégal ma ànd ak Pape Ndour sama waaji l'infatigable Pape Ndour mu def sëba ne ma demal ànd ak day bub ak ay fan sax longueur 65 la waa Pikine géej waay longueur 65 la awa tegalati sa baaroom ma dugg ndey buub ak ay fansam lan moo leen tere nelaw lii laa abaa kuy géwal jugal yëngutu ngor geeg jom gi marieur bu mag bi bor sooy sa yaay ma nga xal xuus Ousseynou baayam Ousseynou Moussa Lam ay baayam Moussa Lam saa xawar ay baayam saa xawar saa far ma xuja bi sir ndube daraame daaw ngoone ma samba borom seere ngaay mo saala lat fatim maa jër gëj sa joobak maajar kayit ndeela demba ndende xureeja xala mi nata sampoole de morom borom jaam ndey buub ndaanaana lay jiin ndey buub gewala lay jiin ndey buub waykat bee lay jiin maa doon nu samay maam yi fay naa la chéri fay ah, yow nga bokk ci membre organisation bi ah, yaa ma gën a xam li fi xew ah, ndey buub ñëw di def anniversaire yan kàddu ngay sànni ndey buub ak ay fan sax ah ndey nag di ko ñaanal laf cat guddi tayam gi yàlla eggaleel ko ko mu commencé ko ci bisimilah jeexale ko ak alhamdulilah rabbil alamin ndax ndey boobu dafa baax ñàkk ki ñaan moom ak jëkkëram yi yàgg fay jàppale ko nag ci côté yëpp bi mooy quatrième fois mu koy tëgg muy réussir yàlla na ko yàlla jàppale nag tey ji parce que ñun ñooy membre yi nga xam te ne la jël wóolu ñu teg ñu place yàlla baax na daal ndey fari chéri Abdou Thiam Serigne Fall la bu sopp yaayu mama faal ana yaayu nay def fasha ana sama waaji ci bamba ji waaw sa yaay ne ci e sa baay ne ci maa sa sa yaay ne ci e sa baay ne ci waaw xew la lu xew ba Pekin géejawaay yëmbal kenn. waaw tey sunu yaay moo aye ndey mbuub. sunu oyof baax. Euh, bëgguñu tey du aye nii rek lañ mën a def daal ñëw wuy su ko. tey fii dina mel ni. tey tamit yéen a bokk leen jaajëf si. <laughs> bu jàmmam bu moom Pikine ene leen aada moom Pikine e wax leen aada yaa moom Pikine ene leen aada yaay moom maa faal ene leen aada madame Kanangoor yaayi Daba Euh, la ma ca gën a neex mooy lanu ko defee fi nga xam ne moom mooy ca banlieue ba